ni ngeen ko xamé ci diiné sant du jege nga tok rek wax ni alhamdulillah fi ne xéewal gu ne ko ca nako suñu borom bëggé nga jariño nga jëf nga jëfé ko noné lolé moy ak ciantam xéewalu gis xéewalu gis bañ ci xol lu haram di ci xol li suñu borom bëgg lolou moy sant gi sa tank yi xéewal gi bañ ci dox jëm fi jëm fu haram wala def ci lu naqari yalla lolou moy sant gi loxo bi itam bañ cee jëfandikoo lu yàlla aaye ak lu xaram loolu mooy cant gi ni noonu kon buñ ñu seetloo jëmm ji yépp jaamu yàlla yi mooy sant mooy mooy canti jëmm ji alal nag ak cantam mooy mooy mooy génne ci asaka kon ki nga xam ne dafa am alal bu bëggee sant yàlla lu ca génn mu toog rek ne na alhamdulillah wala muy sikkar lu bare bari ci déedéet ak santam dëgg-dëgg mooy saa yu waree génne asaka mu génne ko loolu mooy li jiitu ci njariñ ak xikam yi ak jubluwaayi asaka kon loolu mooy li jiitu ci njariñ ak jubluwaayi ak solos asaka mooy mooy cantuk alal sunu boroom tabaraka wa moo moom alal ji yow mu dénk la ci dara sant la itam sa nawle ak sa moroomi jaam yi nga xam ne moom xañ na leen ngir ay sabab ak loo xam ni moo ko xam la tax mu sant la yow nga nga di génne ci lii nga yor nii di leen ci jox loolu gone gone yu ndaw yi sax nga xam ne xamaguñ dara fi ne boo ko jëflante woon ak ñoom sa doom nga jël ñaari téeméer jox ko ne ko nak fukki dërëm yi joxal mako sa morom jele fi ne lol da ci sawar rawatina bo ne ko boko joxe ma doli la fi ne da ci sawar sun borom nak non la ak nun mooy alal ji yeb moko mom jox la ci dara ne la kat li jël ci li joxal mako ke te boko joxe yow dana la wat wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kon lolou moy li jitu ci njariñ ak solos asaka moy ñu xamne moy alal ñaareel bi mooy ñaareeli solosi ak njariñ li ak jubluwaay yi mooy asaka dafa am jàngoro joo xam ni ci jàngoro xol yi asaka képp moo ko mën a dind ci ci bakkanu doomu te mooy a sox suñu borom wax na ci alxuraan ne wa uxdiratu sox wa uxdiratu lanfusu a soxa maanaam bakkan suñu borom da ko mooñaale ak nay bëgg a lépp mu bëgg koo aakimoo noonu la ko suñu borom bindee dafa bokk nag ci jihaad jihaadu nafsi mooy fexe ba nay googu génn ci sa xol wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflixuuna moo tax suñu borom wax ne ñi nga xam ne ñoo fexe ba nay bakkan googu yi génn ci ñoom ñooñu rek ñooy ñi texe te fi mu ne te nay googu dafa am ay jeexit nay bakkan dafa am yu muy jur mooy dalay soril yàlla day tax nga sori itam aljana di gën a jege eh, sawara loolu la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ bi nett la ko nekk noonu itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nayu bakkan googu yi bu nekkee ci yow sox day jur mën na laa jural sax ngay ngay ngay nga tur deret rey nit mboolem bakkaar yu mag yëpp ak yi xaraam yëpp mën naa tax nga def ko loolu feeñe na ci xadisu imam muslim bi nga xam ne moo wax ne wattaqu suxa fa inna suxa ahlaka man kaana qablakum xamalahum ala an safaku dimaahum wastaxallu maxaarimahum loolu dañ ciy dégg ne kon jikko ju bon jooji nga xam ne moom leneen mënu koo dindi lu may joxe sa àllal ci yoon yàlla rek moo ko mën a dindi muy sox jikko jooji maanaam maanaam mooy ndey jikko yu bon yi ndax day jur yeneen i jeexit ndax lu mën a jur rey nit loolu dul woyof lu mën a jur dégg nga nga ngay jëfandikoo mboolem yàlla xaraamal loolu loolu dul woyof te gis nañ sunu borom tabaaraka tax la ba ñu diglee ñu jël ci maanaam maanaam ñuy ñuy génne asaka rek dafa wax ne xuz min amwalihim dafa wax yonente bi ne ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha nga xam ne tazkiyatu nafs sellal bakkan génne ci raxas ko ci jikko ju bon jooji nga xam ne moom mooy ndey jikko yu bon yi te mooy nay loolu asaka maanaam dafa bokk ci li muy def mooy mooy mooy tëskiye boobu yi tëtxiir boobu yi ndax dalay tàmmal joxe day tax nga tàmm joxe ndax joxe du ñëpp ko ñëpp ñëpp ko tàmm fi ne du ñëpp ko man day taxit dalay lay libéré itam ci jaamu alal ak gëm ab deureum yoy yep likoy genn ci yow asaka da ci bok kon asaka dafa bok ci wayam moy tathiiru nafs tazkiyatu nafs bakkar nak bari na ay jàngoro yu mi am waye jàngoro yu ci gëna xóot moy sox bi ñu wax ni wa man yuuqa suxa nafsi fa ulaayika humul muflixuuna fi ne bu ñu ci alxuraan fi ne mbooleem ñi am jafe-jafe ëllëg bu suñu borom di wax la leen ko indil da ciy boole na ñoom dawuñu joxe waaw waaw fi mu ne mbooleem fi wax ci bërëb yu baree baree baree bari buy lim la tee ñu tàbbi àjjana ak la leen dugal sawara la leen dugal ci jafe-jafe da cay lim ne kat ñoom kat dégg nga dawuñu joxe kon lolu moy ñaarelu tombu bi nga xamne mas mës na koo jàpp ci yi nga xamne ay ñariñ la ak solo su nek ci joxe asaka ak ay wayam ñettel bi nak moy asaka euh, day sammu alal da ko yok itam da ci def barke alal likoy ñongal diko di ko di ci def barke moy di ci gini asaka fimne sunu borom wax na ne yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat wa yurbi sadaqaat mooy mooy mooy mooy riba ak alal ju jaarul yoon loolu barke da ca ne moo tax lu mu bari bari du am du am du am solo du am jeexit te day ànd ak i jafe-jafe ak ay dépenses yu bari alal nag buñ ciy génnee asaka nag day laabal alal ji da koy sellal da koy sàmm te da koy yokk na mu ko yokke mooy suñ borom day musal borom alal ji ci jafe-jafe yu baree baree bari ak dépense yu baree bari yoo xam ne mënoon na caa génne du te du ca génne te du ci moom ak ay bunti yoo xam ni yu baree bari lay doon ak bénéfice it bu boo xam ne bu sell lay doon te am am am am barke loolu moo tax وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون لكو جيتم وما آتيتم من ربا لتربو ولا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله متكشنه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون نحن alal <clears throat> kon lolou lañ ci déggene day day likoy yok moy bokk na ci génné asaka dafa bokk ci liy yokk alal ji di ko sàmm di dox sa digganteeg jafe-jafe yu baree baree bari yoo xam ni ak eh, ay natt yu baree baree bari yoo xam ni suñ borom da koy teg ñu bari ñoo xam ne duñ génne asaka duñ ca sàmm xaqi suñu borom tabaaraka wa taala ci biir alal ji